jàkkaarloog yéen fii ci 4appuis TV mbokk yi tey nag dañoo ñëw fii nga xamante ni moo di Touba dëkkub diine dëkkub lislaam seet kilifa gu mag a mag a mag di Serigne Karim Touré Serigne Karim Touré nag yaakaar na ni askan wi xam nañ ko ci ñaan ak li nga xamante ne mooy ajo doomu aadama ñu dalal ko nag tey fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne rek jafe-jafe askan wi la waaye lépp loo xamante ne doon nañu ko wax askan bi di ci teg suñu bët ñu gis ko dinañ ci yaatal ak moom cheikh bi am nañ mbégte bu baax a baax a baax ci dalal la ñu baal rek nga ndoog mbokk internet asalaamualeykum wa rahmatullahi mbokku jullit yi mbokku taalibe yi xam naa ne maa ngi tuub bu baax a baax ndax fan yi yëpp dama duggoon xalwatu wax dëgg yàlla moo tax ma euh, xawoon a gëj a génn ndax euh, boo gisee rek daanaka jamono ji ma toll amatuma jot ndax fu ma toll rek nit ñi ñu ngi may ran day fu ma toll rek nit ñi ñu ngi may dëkkal Mm-hmm. day loolu lépp nag li ko waral mooy xam-xam bu wér bu fi nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah muy kàddu nuyoo yu am solo waaye nag kenn du wax sëñ Karim te doo dooree ak moom ci li nga xamante ne moo di wàllum seet ndax cër bi nga xamante ne suñu borom may na ko ko euh, ku mu ci jàkkaar lool wax la li say mbir wax la la nga xamante ne moo war a xew ci yow suba sëriñ Karim ak seet yan kàddu nga ñu ciy wax. waaw seet suñu borom dama see may man damay seet di tudd tur. wax naa ko ba tàyyi ki nga xam ne da nga koy seetal di ko tuddal ay ko liggéeyee nga ne fee lañ ko liggéey fa liggéey ba nekk. Mhm. loolu mënta paase man a seet mhm. loolu nag mooy seet dëgg dëgg dëgg mhm. di seet ba tudd tur loolu wax dëgg yàlla dafa nekk seet goo xam dafa yéeme man bu ma lay seetal dama lay wax ba ba yow sax dangay mujj jaaxle ndax dangay jàpp ne ku la xam moo ñëw si man di ma wax da fekk na demeewul noonu suñ borom dama see may xam-xam bu leer nañ suñu borom di la cee may xam-xam bu leer naka ngay déggee ñi faral di wax naan Serigne Kerem boo amul dëgg-dëgg doo jàkkaarloog moom pour mu seetal. ndax man sama seet du ma la nëbbu dara lépp laa lay wax moo tax boo commencé li si nga lay seetal naan la lii ak laa man dama lay wax lu leer naññi li nga passé sax dama la koy wax li nga xam ne da nga koo passé dama la koy wax lu essayé gu tamit dama la koy wax man sama seen noonu la demee. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, jamono ji toll nañ foo xamante ne jigéen ñi benn problème lañu am muy problème mu borom kër wala nekk ci loo xamante ne dañ ci yegg seen bopp euh, Serigne Jamil indi solution boo xamante ne nee na bépp jigéen bu bëgg borom kër wala bépp góor boo xamante ne soxna nga bëgg fexeel jokkoo ak man wala nga gisanteeg man ma saafara sa aajo. dëgg la fii ku fi ñëw sa aajo faju ndax mm-hmm. alxuraan si la ñaan. de téere bi yàlla bi suñ borom moo ne watu nazilu min alxuraani maa huwa sifaaw nee na alxuraan dafay saafara lépp. alxuraan may faral di wax nee naa nit ñi bu ñu tawatee bëgg suñ borom di leen may gudd fan mën nañoo dem hôpital de waaye nañ si boole ak alxuraan mm-hmm. nañ si sabab boole si alxuraan ndax alxuraan suñ borom moo ne lépp lay saafara kon nit ki nag wax wax dëgg yàlla boo demee ba nga xam ne yaa ngi si lalu hôpital mm-hmm. ñu lay faj ña ngi si boole alxuraan mm-hmm. na nga si boole sabablu alxuraan loolu mën naa tax suñ borom yëkkatiwaat la nga dem doxiwaat say soxla wax naa ko ba tàyyi waaye buñ fekkee buñ toppee rek bàyyi li xam-xam bi nga xam ne moom la fi suñ borom bàyyi mu wàccee ko ci kaw suuf muy alxuraan yàlla ji nga xam ne alxuraan yàlla ji nga xam ne dafa tedd ba noppi suñ borom wax ne alxuraan dafay saafara bépp jàngoro da suñ borom nag lu mu wax nag kenn mënu koo dindi waaw ndax ñi ñëpp moo ñu boole sàkkuñu binduñu kon nag alxuraan nañ si dellu da jéem a sabalu si alxuraan dana tax suñ borom fa suñuy ràgg ak suñuy tawat allah macha allah waaye nag leneen li nga xamante ne nag askan wi ñu bëri jamono jii dañ la see jox bopp ndax it euh, liggéey bu am solo bi nga koy liggéeyee waaye jooni jooni nga ciy taxawal askan bi muy nopp gu doy waar gi Serigne Karim di liggéey. waaw man nopp damaa toll foo xam ne ma la noobalee ba noppi dama naan la woo ko téléphone man maa lay woo na la woo ko téléphone ki ma la noobal boo ko woowee téléphone lépp loo bëgg incha allahu rabbi ala kulli xaal da koy def man noob gi noob gi may def defar nag ku amul soxna du ma la ko defal ko xam ne bëggoo yoroo soxna da ngay taxawaalu du ma defal noob googu hmm. noob googu ki ma koy defal mooy ki nga xam ne day ngoro nit bëgg koo takk hmm. kooku laay noobal noob gi nag bu ma ko defee semaine incha allahu rabbi moom jeex na moom kooku moom dootoo tàqali ko moom bu soob yàlla incha allah hmm. waaye Cheikh du ñàkk tamit nag bu ñu toogee ak yow nag waxit ci solution bi nga xamante ni indi nga ko ci biir néegu sëy yi ndax it saa su ne da koy faral di wax euh, euh, jafe-jafe ji nga xamante ne soxna ñu ngi koy dund ci néew kàttan bi nga xamante ne jamono jii feebar la boo xamante ne dafa law ci góor ñi waaye garab gu néew kàttan gi nga yor efficace na macha allah ba góor gu ko indi rek sa kër dina neex. waaw garabu garab googu moom si borom dama see ndamu sax mm-hmm. ndax dama see defar ñu bëree bëri ñu gis mm-hmm. ndax daa nekk loo xam suñ borom dama see may xam-xam bu wér wér day mm-hmm. man bu ma la ko joxee bu soobee yàlla dama koy boole ak alxuraan ndax am na ñoo xam rab moo leen koy def moo tax faaw day ànd alxuraan waaye bu ma la ko joxee lépp lu nekkoon si yow si wàllu googu si jafe-jafe boobu suñ borom dana la ko teggil bu soob yàlla incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. bu soob yàlla ñenn ñi nga xamante ne ñooy euh, seen i borom kër seeni soxna jug di ñëw ci seen kërim di ko utal garab gi nga xamante ne mooy bu néew kàttan gi loolu lu ma lay def bu soxnee jugee bi si yow di ko ut si. waaw dama si taxaw taxawaayu lislaam rek. Mm-hmm. ndax taxawaayu lislaam bi mooy fexe leen a dimbale jàppale leen suñ borom teggil leen jafe-jafe yooyu ndax suñ borom dana innaa jaxal naa xalifatan fil ardi ñin ñoo nekkal suñ borom ci kaw suuf mm-hmm. borom xam-xam yi ñoo nekkal suñ borom ci kaw suuf day suñ borom ñin la fi teg ndax suñ borom dane wala tamuddanna aynaka ila ma matana bihi aswajan minhum sahrata al hayata dunya mm-hmm. nagam loolu la suñ borom wax nag loolu nag moo tax ñu war a taxaw bu baax di xettali nit ñi di leen dimbali da yàlla rek tax mm-hmm. waaye tamit euh, muy kaddu yu am solo mbokk yi ci dalal bu ñu dalal Serigne Karim euh, Touré yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom ba tey numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu ecran bi cheikh bi euh, kaddu ngërëm ak kaddu cant yi nga xamante ne suñu mbokk yi ci diaspora bi ñu ngi la koy yónnee di la ci sant bu baax a baax a baax ndaxit liggéey bi nga xamante ne da nga koy liggéey jàppal nit bës ne ko bés temps di nga jot say papier wala say këy waaw yooyu dama koy garante mhm. wàllum këyit dama koy garanti ndax bëri na moodu moodu yu bëri ndeysaan dañuy dem sax ba may booleeg seen mbokk seeni mbokk ndax jëflante bu rafet mm-hmm. ndax man képp koo xam ne ñaanal naa la si wàllum kayit mm-hmm. incha allahu rabbi kayit yooyu ngay lijjanti ak kayit bu man di doon mm-hmm. da si jot moo xam kayit boo xam ne da ngaa bëgg liggéey moo xam kayit boo xam ne si ak kayit bi nu mu mën a mel rek kayit lu mu mën a doon rek boo ñëwee si man incha allahu rabbi su ma si duggee xalwa kayit nag mbirum xalwa lay doon ñu bëri ñu ngi wax kayit da xamul kayit nuñ si ñaanee kayit si xalwa lañ koy jaarale boo ko jaaralee sa xalwa ko si ñaanal incha allah rabbi mu jot ay kayitam loolu lañu ñaan da nga gis ku ñaanal nit sax si wàllum kayit du ko am daa duggul xalwa xalwa moom boo ko duggee boo ñaanalee nit ki si kayit da koy am bu soobee yàlla incha allah rabbi. da mm-hmm. mm-hmm. nga faral di wax saa su ne da ngay mer wala léeg sa xol day tàng ci ñi nga xamante ni dañuy yëkkati seen alal di ko jox ñenn ci sëriñ si te du ñu am retour wala suñu leen woowaatee du leen jot lu tax loolu di la métti sëñ Karim. waaw damay naqari lool ndax bu yàggu rek am na ko ma wax ma lu mel noonu dama ne ko toppal numéro bi nga dem si ko yoon nga yóbbu ko si yoon. Mm-hmm. day xam nga loolu li tax ma wax ko ko damaa gis ne wax dëgg yàlla nit ñi sonn nañ nañ leen dimbale da yàlla tax nañ dimbale nit ñi da yàlla tax nit ki nga xam ne daa am njàqare ñëw si yow hmm. lijjanti alalam xamoo foo fu mu ko lijjantee hmm. àq jooju ku ko ñemee rek war ngaa xalaat ëllëg waaw àq ju diis la da hmm. doomu aadama bu bëggee di ñaan muy nangu day maytundu ko àq àq boo ko maytundu koo rek loo ñaan suñ borom def ko wallahi ba noppi nga sellal jaar si yoonu siraatal mustaqim di jàng alxuraan di moytandiku eh, bàkkaar yi nga xam ne siñ borom da koy tere di jëf li nga xam ne suñ borom da koo digle boo ko dee def képp koo ñaanal suñ borom dana ko nangu ndax sa suñ borom da lay may ijaaba ijaaba nag boo ko déggee mooy ko xam ne suñ borom da koy nangul balum ñaan suñ borom def ko man foofu rek laa nekk hmm. Hmm. Eh, moo di wàllum xalwatu nag xam naa ne naam bi ngi ciy génnee ak léegi yàggul waaye yaa ngi ciy def liggéey bu am solo damay faral di léegi nga ne xalwatu képp ku ñu ko duggal bu ñu génnee say mbir dafa war a faju waaw xalwatu man xalwatu gi may dugg ma ko duggee sax moom ñetti fan dafa am xalwa ñetti fan am na xalwa juróom-ñaari na xalwa juróom weer am na waaye xalwa bi nga xam ne dugg nga ko ngir aajo saa boo génnee si borom faj ko ndax xalwatu yenente bi sax da ko daan dugg yenente bi alayhi salaatu bu daan dem si xare bi day dugg xalwatu xalwatu daa nekk loo xam ne si liy faj aaji doomu aadama la nit ki dana ñaan lu ba sonn dem fu ne lu na mu sangoo ko lu ne mu takku ko dem fu ne fekk na xalwatu mooy faj aajoom loolu wax naa ko ba tey am na ñoo xam ne xalwa mooy faj seen aajo ndax seen aajo day àgg foo xam ne dugg wéetal yàlla wéetal suñ borom subhaanahu wa taala di ko wéetal di ko ñaanal loolu mooy tax aajoom faju mm-hmm. wax naa ko ba tey mm-hmm. Mm-hmm. wax nga ko ba tàyyi yaakaar naa ne mbokk yi kàddu yi nga xamante ne ba tey ñu ngi koo séq ak ki nga xamante ne moo di euh, Serigne Karim euh, ture di kàddu yu am solo yoo xamante ne saa sune rek dañu koy bëgg askan wi di ko euh, teewee waaye nag cheikh bi fan yii passé dafa am événement bu mag boo xamante ne dañu cee génn nga am ay kàddu yoo ci waxoon muy combat Modou Lo ak Ama balde làmb ji am nga lu nga ci waxoon ni nga ko waxee woon la ko suñu borom dogalee yan kàddu ngay wax askan bi laataa ñuy tàggatu. ki ma boole woon ak uh, Modou ba ma ñaanal ko mm-hmm. wax dëgg yàlla dafa dama wan uh, uh, ab taalibe wan ma ab yar wan may teggin mm-hmm. loolu nag moo tax ma ñaan si làmb waaye làmb sax dawuma si ñaan waaye keroog nag ñaanal naa ko ndax wax dëgg yàlla li tax ma ñaanal ko jëflante bu rafet bi ñu jëflante ak man mm-hmm. wan ma yar wan ma teggin wan ma wan wan ma ak baax wax dëgg yàlla ma gis si ñoom yar ak teggin moo tax ma jël sama kurus ñaanal leen waaye làmb sax du si ñaan wax dëgg yàlla ñaan Modou Lo bi làmb ji avant làmb ji di tàmbale boobu ba léegi wax dëgg yàlla nelawutuma day ku xool ku ma xool rek dana xam ne def na si man jeexit ndax boobu ba léegi ma daanaka maa ngi nekk di ñaan euh, di tëju xalwa di ko ñaanal ba suñ borom defal ko ndam ndax man xalwa dama see toll foo xam ne si saa bu ma si ñaanee rek suñ borom nangu ko mm-hmm. ndax dama damaa damaa jaamu yàlla ba suñ borom may ma ko ndax euh, damaa wéetal yàlla nekk si ndigalu suñ borom yi suñ borom fekk si ma ndax suñ borom dana suñ borom ma nekkal ma nekkal la mm-hmm. man ba ma xamee lool rek laa jéem a nekkal suñ borom moo tax suñ borom lu ma ko ñaan suñ mm-hmm. Mm-hmm. Euh, mu am leneen loo xamante ni xëy na sénégalais yu bëri bëgg nañ tamit nga am tuuti loo leen ci tënkal muy combat bi am dimanche ci Eumeu Sène Tapha Tine euh, xam naa ni ñaanaloo ci mbër yi waaye yan kàddu ngay dénk askan wi ngir bu ñu yeggee ci bés boobu. waaw li may dénk mooy sëriñ si nga xam ne dañuy teel a wax si làmb ñu bàyyi ko ndax làmb des koy walbati man mi maa ngi loo xam ne si nit mën naa wax si làmb ma yor ma wér ko làmb ji wëlbatiku mm. moo tax naa maa ngi wax sëriñ si nga xam ne dañuy teel a wax si làmb mm. nañu nañu nañ ko bàyyi ndax man ngaa gis benn sëriñ toog fee wëlbati làmb ji mm. ndax maa man maa ngi loo xam ne si képp ko wax si làmb su ma neexee toog fi ma toog wëlbati làmb ji kon loolu yooyu nañ koy ko bu baax a baax a baax a baax muy kàddu yu am solo cheikh bi am nañ mbégte bu baax a baax a baax ci dalal la waxtaan bi am na solo nee naa saa su ne rek bu ñu toogee ak yow que wi ñu bàyyi xel njëriñ lay doon ci ñoom ndax it euh, képp ku ci jëflanteeg yow rek xol wu sedd la ci am ak tawféex euh, kontaan nañ ci dalal la ñu bàyyi rek nga joxe dernier kàddu yi. léegi nag euh, kàddu yu mujj yi mooy. la ma gisaloon Ousmane Sonko ak Karim Wade. Mm-hmm. ñoom ñaar daa am sarax bu ñu war a def mm. sarax bi buñ ko defee ku si bëgg ñoom ñaar ku si bëgg jël réew mi dana ko si jël mm-hmm. wax naa wax naa ko nag incha allahu rabbi ndey eh, sarax boobu nag ni ma ko waxee noonu lay amee mm. képp koo xam ne ndax Macky Sall mii jamono yi muy xëccoo ba muy xëccoo réew mi boobu gone laa maa ngi si daara ji mm-hmm. waaye nag eh, mas nañoo dajee kër Sëñ Alaaji Baara mm-hmm. waaw moom Sëñ Fàllu ku ne xam na ko bañ fa dajee wax dëgg yàlla ba ma ñaanal naa fa ñaan goo xam ne suñ borom fa la jaaree nangu ko fal ko si réew mi mm. waaye jamono ji ñi nga xam ne ñooy xëccoo élection yi képp koo xam ñëw nga fi ba ma wax la sa sarax mm. bu soobi yàlla incha allahu rabbi da nga jël réew mi mm. bu soob yàlla mbaax na jërë ngeen jëf barakallahu fiika mm-hmm. jasaakumullahu xayran kàddu yu am solo ci dalal bu ñu ko dalaloon sëriñ